waaw euh, li nga am na solo euh, man damay appuyer surtout ci li nga xamante ne moom mooy enjeu élection yi ndax gis nañu njiitum réew mi euh, dafa am un plan bien structuré ñuy génn ci PAP 2A bi ci 2023 mu am ay réalisation yi rëy yoo xam ne def na ko ci malgré crise bi nga xam ne am na ci monde bi infrastructure yaa ngi génn Euh, kilomètre de route yi gis nañ nu mu toll gis nañ pont yi ak auto pont yi en terme de transport gis nañ TER bi njëriñ bi nga xam ne amal nañu ko BRT bi équité sociale également gis nañu li nga xam ne mi ngi koy dimbalee njaboot yi ci ci ci biir kër yi gis nañu malgré conséquences yi nga xam ne crise bi am na ko dans le monde mu yokk salaire koor yépp daanaka alors euh, ci loolu lañ la ñu bëgg euh, Sénégal pante bi mu nek mu continuer ci ndax japp na ne ah, même en terme de sport bi doon wax léegi résultat yi mën nako revendiquer parce que joueurs yi seen bopp ñoom ñoo waxal sen bop ni daf leen mettre dans les conditions ñu moyens yi ñu laaj yépp mettre nañ ko à leur disposition pour que ñom ñu mëna football ak xel mu dal mëna gagner Coupe d'Afrique bi on a vu le joli stade bi nga xamantene ne yépp da fay rassurer non y a une exposé bilan Macky de. te non, assemblée lañ non non est-ce rapport. mais ce qui fait le bilan. Hein? c'est l'élaboration des politiques publiques C'est ce que je def moom mooy dem présenter un budget à l'assemblée pour que nous votions. C'est ce que je enjeu si aujourd'hui ce euh, que euh, nga xamante c'est majorité bi mu soxla amu à l'assemblée ba mu am yenn blocage ci politique yi nga xamante bëgg na ko dérouler pour réew mi xeyna bilan bi du reluisant ni ni mako ko listé légui lool motax ma listé ko lool moy enjeu bi enjeu bi moy que ñu jox ko majorité Sénégal mëna téggu ci continuité bi nga xamante ci la nek ci marche vers l'émergence bi nga xam ci la réew mi nek mu mën ci continuer mais tay jii buñu fa tegee ay député yo xamante dañuy ñëw pour rendre ce pays ingouvernable yaakaar naa ne ci peuple bi lay méttee. est-ce que vous le pensez est-ce que ñom dañuy rendre pays bi un gouvernement. mais ils l'ont dit tamit ci askan wi war indi ay xalaat ci liy suuxat réew mi. ils l'ont lool loolu la ñuy xalaat lool la ñuy xaar ci une opposition républicaine une opposition républicaine critique d'accord. dafa am loo leen di reprocher dafa mel ni yow dafa am looy reprocher dafa am lu ma leen di reprocher quel est le problème dafa am lu ma leen di reprocher danoo matalul seen taxawaay li ñuy xaar gis lu doxul ci dëkk bi ñu wax ko exposé ko gis lu doxul nga wax ko mais aussi il faut challenger parfois le pouvoir ngay def ay propositions mais xalaat nañ né li buñ ko défé dina ci comme yow né nga intérêt peuple bi ngay ngay ngay waxal intérêt peuple bi mo la Ce du sa intérêt bop du bëgg am responsabilité kessé du bëgg nekk député kessé mo la du bëgg place kenen kessé mo la da nga pour intérêt askan da nga war di wax jëm lii jëm ci intérêt askan wi bu ñu demee ba djégé nawet bi nga ne ah on attire l'attention du gouvernement sur tel et tel point par rapport aux inondations ak yooyu foofu la xaar opposition mais malheureusement ñun amuñu opposition bo xamné da fay wax ci li njëriñ askan wi opposition buy xol jafe-jafe askan wi di ci appuyer wu politiquer ko pour mettre len en mal ak nguur gi fi nek

ba pare di lu tax amu leen immunité woo ko ngeen togg waxtaan xalaat yi mu wax ci livre bi ngir jéem a xool ndax du jëmale réew mi kanam. pourtant woo nañ ko fii dem na pale ba. non contexte boobu noonu dafa am lu xewoon mu dem pale. mais au delà de cela tey ci ay xalaatam ci njëriñam. Moussa ci li nga bokk. Hmm. doo xaar ku la ci woo. est ce que xajal ngeen ko yow ngay xool yaay xool li doxul. Hmm. nga ne lii doxul man bu doon man je propose lii ak lii ci li nga xamante ne moom moo gën ci askan wi. mais yow nga wax solution ba paré hmm. di créer problème di wax ay waxi taal réew mi di wax lo xamantene ne ay waxi waso la ay luy jaxasse réew mi la Sénégal jamm lañu xam ak teraanga. est-ce que dénoncé wul seen taxawaay tamit. ce n'est pas des faits. jàmm jàmm est-ce que su ko ko ci ay faits. yo xamantene ne mën nañu ko reprocher ak teraanga mais faits yi nañu ko wax. malheureusement faits yooyu. c'est hmm. le bilan te il ne nous attaque jamais sur le bilan. jamais parce que amuñu luñ ci wax bilan c'est quelque chose de palpable lo xamné population yi ñu ñu ngi romb diko gis diko jëriñu pour nga attaquer ko ci du malheureusement donc il faut ñu wut pour jaxassé réew mi di wax ay waxi tar réew ay waxi vatan en guerre et que lo toll ak fi monde bi toll ci en termes de crise ak posture Sénégal lu war sénégalais moy solidarity.